leen gërëm leen sant ñoom benn fi ñoom benn chronique politique chronique politique ñu ngi am alors bu jot fii si Salam Vision mooy seen émission les coulisses politiques tey chronique bu am solo la indi jëmale ko sur la situation politique au Sénégal euh, Sénégal kenn na yàgg politique du tey jamonoy Lamine Gueye jamonoy Senghor ba Abdou Diouf ba Abdoulaye Wade ba Macky Sall bii mais bien avant ça politique xiiroo ngaayu yàgg na am Sénégal du tey bu ñu xoolee y' plus de cinquante ans même même même plus de euh, quatre-vingts ans euh, jamonoy assemblée nationale politique yi gis jamono yooyu wute naag assemblée bii euh, jamono député yu woon dañoo am nag dal yar teggin ku nekk di joxe sa xalaat. si jafe-jafe réew mi ba si yenn projet de loi yi jëmale ko si askan bi ku nekk di nga jël sa kàddu yëkkati sa loxo doo dépasser kenn doo saaga kenn doo ŋaññi kenn ma ne loolu mooy politique politique bu ñu gis tey saagante ndey am na si tab dëmm am na si ku nekk yaa ngi dul sa morom sa morom baaraam ku nekk yaa ngi tuumal sa morom ma ne loolu du Sénégal politique Sénégal référence la naa ko wax si ay émission sur le plan africain bu ñu démocratie am na Sénégal liberté d'expression am na Sénégal ba ci politique am nay kàngam yoo xam ne ñu jógee Afrique ñëw di inspiré wu sur la politique sénégalaise Senghor xarale na lool si politique Lamine Gueye ku mel Lamine Koura moo fii di Senghor ne ko kay dem Sénégal yow war nga mën a politique. diriger sa réew ma ne ñaari kàngam yooyu di Senghor ak Lamine Gueye ak ñi fi nekkoon euh, defoon nañ fi jéego yi am solo ñun fekkewuñu ko mais ay mag ñoo ñu ko nettali histoire ñoo ko ministère euh, moo tax tey dañ leen di fas yéene defal chronique bu mucc ay nañ delluwaat xel yi di woolee parti politique euh, ñu gën a indi ay leeral sur le plan national politique bi ñu gis Sénégal tey dafa metti te du politique ñu baal ma si terme bi c'est une politique ingrate du saaga nit du xas nit du vilipande nit du diffamer nit mën nga ko def ànd ak yar ak ay idées yu jaar yoon des idées loolu mooy kàngamu politique mais ku yeewu nga créer sa parti politique amuloo sax récépissé amoon sax siège boo xam ni di nga mën a dalal askan bi te di nga mën a waxtaan askan bi ak convaincre leen ma ne politique da war am ce qu'on appelle euh, une bonne feuille de route euh, am aussi un plan d'action am carnaval am loo xam ni ëllëg boo faloo baa nga am euh, nga am vision jëmale ko askan dafa war a jaar yoon man gis nañ ay politiciens yu am solo bu jamono Ablaye Wade jamonoy wax naa ko euh, di rendre hommage au président Ablaye Wade nekkoon aussi un grand panafricaniste Ablaye Wade amoon une expérience politique xooleen Ablaye Wade vingt six ans ngi xeex pour jot réew mi yàlla def moom fi ñaari mandat dem yoonam mais keroog bi sénégalais yi jëngoo fippu bëggoon fi imposer doomam euh, euh, nasaxal institution yi moo tax gis ngeen pas bi fu mujjee premier euh, daanu kan moo ko daanal mooy jeunesse bii ndaw Sénégal atum 2000 euh, ma ne ndaw ndaw réew dañ ko war a protéger maa ngi wax le président de la République monsieur Macky Sall bi nga xam ne dañ naan ndaw la il est né euh, après l'indépendance naam président Sall ndaw yi ñoo la fal président Sall war na gëstu ndaw yi ma ne loolu mooy président euh, d'y passer de très bonnes communications politiques ba sa entourage au niveau de la présidence de la République ñun saagaw ñu kenn xas ñu kenn le président war excellente communication que ça soit la présidence que ça soit au sein de l'APR loolu mooy réew loolu mooy démocratie di woo kuje bi muy l'opposition la société civile képp nga xam ne jóg nga pour def politique pour défendre la politique dafa war a jaar yoon mais politique du fi nekk di euh, nekk si réseau sociaux yi di saaga nit ki di ŋàññi nit ki loolu lañ ko war a Sénégal am nga droit def politique parce que réewum démocratie la réewum expression la loolu mooy Sénégal xooleen France un grand pays de démocratie États-Unis ñaata mandat ñaari mandat doo gis président bu lekk trois mandats aux États-Unis am sax fit boobu les États-Unis ont été créés en 1779 le premier président américain George Washington nee na démocratie dafa nekk loo xam ni dañ ko war a euh, jox gëddëm démocratie kenn war ko nasaxal démocratie kenn war yore ay paaka ay jaas yi démocratie du mbirum nerveux ay nervi yore ay jaas yore ay yat di farse askan leen faragal man loolu ñu ànduñu si tey ànduñu si ëllëg ma ni politiciens yi euh, les acteurs politiques euh, ñi yëngu si mbirum politique li ñu gën a góorgóorluwaat delloowaat ginnaaw il y a cinquante ans il y plus de cent ans la politique a été toujours euh, une leçon de démocratie et une leçon de fair play lu ñu gis tey du politique tey du politique ëllëg moo tax tey dañu jël chronique bi jëmale ko sur la politique d'hier et la politique d'aujourd'hui ma ne dafa wute di woo tous les Sénégalais lambda euh, muy mag muy ndaw les formation politiques qui restent au Sénégal nañu xoolaat seen bopp xanaa di wax le président Sall le euh, déclin très rapidement euh, élections locales yi kañ lay am Sénégalais yi boo demee ci si mbedd yi ñaa ngi coow ah bëgg nañu yeesalaat seen i gox-goxaan am na fi maire yoo xam ni amuñu fi benn njëriñ yëguñu seen askan faluñu seen askan ma ne loolu du maire maire dafa war a jege sa population maire dafa war a xar tànk tubéyam xam bëggut population mais li ñu gis si maire yi tey dafa gën a ndasaxal population liggéey ñu fi dar seen bopp lañ fi nekkal ak seen poche ma ne loolu du politique nañu wax askan bi lu leer te seen mandat jeex na euh, di woo le président Sall de prendre très rapidement une décision à les élections locales ma ni mbokk yi moom tey suñu chronique jëmale ko si comportement lan mooy politique ak démocratie nan la wutee leen gën a leen sant à la présentation Cheikhou Sakho mbokk jàmm ak jàmm yoon beneen chronique incha allah